dafa tàmm dafa tàmm euh, benn doxalin ay que moom euh, ministre la wala député la wala directeur général euh, il vit en dehors des réalités tàgg lui bureau këram le lu solennel alors que askan bi ba moom du changé askan bi il a ses ses habitudes de fair comme ni mu ko waxee Sénégalais yi dañu gëm. Euh, dañu gëm voter mais dañu gëm politique aussi ce qui fait que euh, politique euh, sénégalais bi d'accord na mën na am xuloo xeex réeroo mais euh, il accepte tout finalement dans le jeu politique mais gis nga lu mu bañ mooy ku ko xañ dem voter ça les Sénégalais ne le supportent pas donc ñun am nañu modèle démocratique on a un modèle si si si le Sénégal tien jusqu'à présent c'est qu'il y un modèle cest à que nit ñi xam nañu ils doivent voter ils ont mënoo ko tere wax sénégalais la la liberté la liberté de dire ce que tu penses la liberté de critiquer mënoo ci dara la la liberté de dire que je ne suis pas d'accord ñun am nañu une culture démocratique ce modèle la euh, il est déstabilisé par les conflits entre les partis politiques. Mais modèle bi comme ils l'ont dit tout à l'heure ça dit que tension dafa bokk ci suñu modèle bi ñun 2024 2012 euh, 2000 2000 euh, euh, toutes les élections présidentielles depuis depuis euh, depuis les les les les grands les, les, les, depuis les, les grands politiques. Si on te raconte que, que bu ñu demoon élection, pratiquement les euh, nit ñi dañu doon bàkk comme lamb. Donc ça fait partie de, de notre culture, ce qui fait que pour man, c'est le modèle qu'on n'a pas valorisé. et ku ñëw ci nguur dafa defe ne il unique qu'il est différent, qu'il fait mieux que les autres, qu'il est l'élu de Dieu. Alors que le peuple, là, il n'a pas bougé dans son modèle. c'est-à-dire Sénégal mën na la bàyyi nga def lu la neex. mais jour ba bés bi bon Macky Sall jaar na fa. ma ma je par exemple à six heures et demie les gens sont là ñoom ñooy doon organiser seen rang. gaaw mën a voté. mais pourtant kenn xam kenn laajul keneen kii nan nga nar a voté. Hmm. dañu organiser voté dem seen toog seen kër bon Wade pare Diouf pare Senghor sax du ko joxoon chance mooy que ñu doon voté bon c'était limité. <laughs> ah. limité et truqué. et truqué <laughs> waaw parce que. xamal na les am na ay jamono et sans identification. waaw voilà tu viens tu peux être le chef de village. amul entre tu viens tu non non non mais. c'est-à-dire boo nekkee chef de village bi. am na période mën nga ñëw woteel sa sa sa sa waaw tu viens avec tes kii. avec tes quoi. Ah, ah, les cartes. da ngay kii rek yàpp yàpp da ngay kii rek euh, itam par exemple duñ duñ la identifier. par exemple yow si même yow buñ la joxoon tey yow da nga mën nga voter plusieurs fois. waaw amul waaw amul amul amul amul rien dara. Ah. par exemple yow da ngay da ngay wote wote tourner classe bi. waaw amoon amoon na fichier électoral mais c'est un fichier fictif. Mm-hmm. bourrage ah, léegi par exemple tu représentes ton parti. bu heure añ jot ñu ñu ne añ bi ñëw na ñëw leen añi. yow si tu n'es pas nga dem añi bala ngaa ñëw gars yi sol kay enveloppe ba mu fees te dara nga ci mool parce que yaa am am. na def deux cent am. waaw ñu jukki. jukki waaw na am na am na trois cent votants <laughs> trois cent votants dara. non mais vraiment kon. c'est-à-dire que li système boobu nag bon les jeunes de Pastef yi te di système parce que le gouvernement. le gouvernant plutôt, il, il ne sait pas que le citoyen est en avance sur lui. C'est ça le malheur de, de, de l'élite politique actuelle. Que les citoyens en avance sur eux. loolu tax ci Sénégal yi mën na la euh, comme ni ñu ko waxee sànq moom xam na ni bésu bésu vote bi non kenn mënu ko teree dem vote. kenn mënul manipuler vote non c'est ben les jeunes là c'est la c'est la preuve la la nouvelle génération ñi nga xam ne am nañu dix huit ans wala vingt cinq ans la da nga xam lu ñu lu ñu préparé